dañu ñëwoon tey fii ci direction générale des élections indi ñetti dossier ñaari dossier wu retrait ci listu Dakar kii nga xam ni mooy Joseph Sarr nekk ak kii nga xam ni mooy Pala Samb nekk ci listu bi boo leen fàttalikoo semaine passée ñëw nañ fi indil leen dossier boobu le mercredi ñoom ñu xamal ñu ni ñoo ngi ci parrainage bi ba tey moo tax mun ñu jël dossier bi et tey ci altine la ñuy ubbi lépp lu jëm examen dossier wu candidature yi nga xam ni jot nañ ko et que nanu bàyyi ba booba ñu dellu si li yéeme nag mooy ñëw nañu comme ni nga xam ni noonu lañu ko demandé woon tey fii mais pendant une heure de temps yéen ngi taxaw maa ngi woon ci biir di waxtaan ak ñoom ci njëkk ak teraanga pour ñu jël bi nga xam ni mooy dossier wu Yewwi Askan Wi te loolu nit waruñu ko tere mais à notre grande surprise malgré la ma leen wax insisté ci ndaxte kenn mënul te nit ci biir liste bu fekkee bëgg ko ñoom ñu ni loolu duggul seen compétence duñu jël dossier yi kon dossier yi refusé nañ ko encore une fois jël ko te ñoom ñooñu waxoon nañu dellu si altine ndaxte bu ñu dellusee altine ci période boobu la ñuy commencé examen loolu jamuñu fa gis ngeen bi ma yegsee dama yegsi ak benn huissier de justice nga xam ni moom dafa war a ñëw constater li ñuy def ci biir mais même huissier de justice boobu dañuy dugg ci bâtiment bi te ku nekk xam na huissier bu ñëwee war def constat war nañ ko mën bàyyi mu accéder ci bâtiment kon ñaari courrier yi ñun ñu ci jël benn ñetteelu courrier bi moo doon di ñëpp xam te Benno Bokk Yaakaar def ko mooy dépassement ci lim bi nga xam ni moom la waroon def ci lu gën a ci parrainage bi ñëpp xam nañ ni nombre bi warul weesu cinquante cinq mille trois cent vingt ñoom ñu déposé cinquante cinq mille trois cent vingt même bi ñu jéemee def rattrapage boobu génne benn arrêté bi nga xam ni ministre rek moo ko gis ñun gis ñu ko fenn dafa jékki-jékki rek seen benn communiqué ñu gis ko alors benn acteur politique gisuñu arrêté boobu même bi ñu jéemee def rattrapage boobu ñëpp gis nañ ni bi nga demee ci journal officiel bi da ngay fekk ni le 5 lañ ko fa dugal alors que ñoom ñoo ngi déposé le 4. donc ñu indi woon courrier pour xamal leen ni allah kulli àll ñii mën nañu am liste. ci élection yi ñu jëm nii ci biir Sénégal nii ci bitim réew kon ci cinquante quatre circonscriptions yëpp muy quarante six à l'intérieur comme huit départements à l'étranger Benno Bokk Yaakaar bu fekkee yoon rek la ñuy wax waru fa am liste warul am liste nationale parce que kenn umpalewul que en deux mille dix neuf lenn rek la ñu éliminé Malick Gakou te arrêté boobu yéen am ngeen ko arrêté bu conseil constitutionnel bi di wax ni lu tax bokkul mooy dafa dépassé nombre de parrain donc ñu indi woon courrier boobu aussi déposé que ñu ni courrier boobu tamit ñu ko jël ndaxte bi fii lañ koy defee ñoom liñ doon def ci parrainage yi parrainage donc di wane rek nit ñi nekkuñu pour que tey yoon bi nu jaar nga xam ni jàpp nañ ni mooy yoon bi normal droit jox ñu ko yoon bi nu jaar jàpp ñu fekk ci yoon boobu loolu ñu koy dénoncer di ko regretter di ko wax fii ci kanamu sénégalais yi di leen jël à témoin ma ñëwoon tey def loolu ak ki neex ak ki nga xam ne aussi mooy huissier de justice. lan la ñuy xaar ci situation bi wax nañ lu tax ñu rejeté ah ah. lu tax ko teguñu fenn parce que tey nee naa leen correspondance bu ko nit defee war nga jël en retour nga tontu wax ka lu tax. jëloo ko mais yam ci ni du ma ko jël képp. sans motif. parce que bokkul ci compétence li nga xam ni moom ngay nekk di def bi loolu dafa jaaduwul parce que nee naa leen li ngeen di def du élection locale du élection présidentielle li ngeen def élection législative dossier yi dossier wu présidentiel dossier wu local. dossier wu élection législative nan la mën dissocier ñaari ba génne lii ñu indi nii tey ci compétence li ngeen di def. taxawaay yeewi askan bi lan lay doon taxawaay yeewi askan bi lan lay dina quelque fois alpha am taxawaay bu wér parce que le président Macky Sall li mu bugg def mënul ne ni damay éliminer liste yeewi askan bi Dakar ba pare moom. def élection ci biir Sénégal ak ay listam bitim réew ak ay listam alors que moom ci boppam respecté wul nombre de parrain yi loolu xel xalaat ko. da ngeen bàyyi mu sedd wala da ngeen fas mënuñu bàyyi mu sedd pour la bonne et raison que moomul réew mi te mënu fi appliquer li nga xam ne tey loi bi wax ko loi bi li mu wax mooy moom ci boppam cinquante cinq mille trois cent vingt sept la coalition bu doon déposé ci lim ci parrain

bugguma ci pour caaxaan bugguma ci pour foo bugguma ci pour bu ñu jógee pour changer réew il faut ñu am doxalin bi nga xam ni sénégalais yi dañuy am confiance ci ñun te confiance boobu mooy en toute circonstance di leen wax li am te nag dama bëgg ñu déglu ma bu baax a baax a baax keroog ba ma génnee ci direction générale des élections dama ne liste bii du liste ba ma déposé ndaxte effectivement wax waxtu dépôt li yi jote dafa am ay instruction yi nga xam ne joxe nañ ko pour que ñu retirer Palla Samb mën a dugal Ngoné Menk mais malheureusement ki nga xam ni moom laa préposé woon ci dépôt yi muy Saliou Sarr deful loolu yi mu demee dafa dugal beneen tour parce que nee na dañ ko conseillé ni que sixième ak septième position la parité respecté tout bi ma jotee liste bi le lendemain gis ni parité bi ce n'est pas respecté ci jógee pour xam la xew ci laa jógee pour également engager procédure léegi liste bi ngeen déposé mais li wér mooy kenn waru ko woon foofu conseiller ba muy changer une chose parce que ñun ñoo ko def confiance ma jox ko sama cachet mu déposer tous les toutes les listes départementales comme ni ma ko defee woon fële Matam ak Jibril Ngom mu def leneen jox ko sama cachet pour mu déposer toutes les listes départementales déposé su Dakar comme ni nga xam ni moom lañ ko doon xaaree donc loolu mooy li nga xam ni mooy dëgg ji parce que bu ma xam-xam ni dëgg rek mooy génn sama génn mais li wér mooy li wér mooy direction général des élections amul woon naan ko sixième ak septième war nañ ko respecté war nañ ko respecté waa DG ñoo ko wax loolu ba mu waa moo ko wax parce que moom moo ma ko wax te jàpp leen ni sama gémmiñ li dul dëgg ci génn parce que politique bi bëgguñu toog changé réew mi te duñ ko teg ci dëgg dañoo bëgg suñu Sénégal mel ne France mel ne feneen te loolu lu koy indi mooy dëgg en toute circonstance donc moom bu waxee ni ñoo ko wax loolu mënuma def lu dul gëm mais warul woon topp tamit li nga xam ni moom lañ ko wax ndaxte ñun ñoo ko jox lis en présence de Cheikh Loum qui est là avec moi en présence de Bassirou Diomaye Faye ci laa ko waxee defal directive directive bi quel que soit alpha lépp luñ ko mën a joxe ci biir nga yor sama cachet waroo ko changé taw xamaloon hmm. donc ci biti lañ ko xamee mais tey direction générale des élections war ñu ko woon apporter war ñu ko woon indi ak ña fa nekk pour mu changer quoi que ce soit alors ko loolu mooy dëgg ci moo tax ma ne liste bi man mënul nekk sama liste parce que du loolu laa demande wu ñu déposé mais nag dina am tey jii nii nga joxe sa kàddu jox ko kenn mu def leneen tal nañu Matam dalaat nañu aussi au niveau de Dakar c'est ça la vérité. mais en quoi la DG était responsable la DG n'avait pas à intervenir pour faire changer quoi que sur liste bi nga xam ne moom la ñu déposé dañu bu ko defee ñu déposé mais warul woon wax ñu déposé defal lii defal lële ba tey mu indi ñoom dañ mais li wér mooy li wér mooy ñun am nañu yoonu changé ko te am yoonu changé ko moom yëkkati pour mën a ñëw indi li nga xam ni moo war pour que ñaar désister ñu mën a dugal ñaar loolu moo ñu indi te gisuma la tax ñu war a tey bañ a recevoir suñu ay dossiers mais nag loolu loolu loolu wéy loolu du wéy xam nga normalement mandataire mooy yëpp mais ku xam équipe ni muy doxee boo ñëwee ci liggéey da ngay partager les rôles man dama yor une équipe dans cette équipe ñu bare nekk ca ñu yor tri dossier yi ñu yor rangement dossier yi ñu yor saisie dossier yi ñu yor dépôt dossier yi te la ca bees mooy dañu am alliance ak kii nga xam ni mooy wàllu ñi ma ëppaloon njariñ man mooy respect wu accord yooyu parce que plan boobu plan la bi nga xam ni dama ko définir pour mën a am plus de cent douze députés bu yàlla defee ànd boobu am bu ñu defee suñuy calcul sur les cent soixante cinq donc fexe ba liste bu nekk loolu nekk ca lu ma jiite loolu moo tax ku nekk da nga koy jox benn rôle mu def ko te rôle boobu moom lañ ko jagleel jour boobu d' plus que moom moo travaillé ci département bi au niveau de la coalition gën a maîtriser nit ñi tur yi nga xam ni moom la ñu jàpp ci département yi pour ñu jóge yeewi askan bi nekk ci liste boobu ñu war bokk ak wàllu. d'accord loolu moo ko dugal ci loolu. ma jox ko cachet bi pour mu def loolu c'est de bonne foi. parce que jàpp naa ni ñun ñëpp ñoo nekk. mais bu demee ba changement woon am direction générale des élections war ñu ko ci yóbbee. te wax na ko répété ko ñoom ñoo ko wax loolu. tey seen responsable ci li def nii donc ak moom lañ ko defee mais mënoon nañu rendre compte mais bu mu gisee bis bi ci Facebook yi gis nga ci réseaux sociaux yi jóg nu am taxawaay bi war jàpp ni lii mënul nekk suñu liste moo tax ñu mais dama leen di wax encore une fois loo leen dégg mu génn suñu génn dëgg la te duñ ci mos a jóg